Thank you. attention attention beaucoup Sénégal beaucoup ngay mexe beaucoup mbokku voilà une journée à ne pas manquer mais surtout à retenir la date gagne la le surlendemain de la Korité L'année petit match kooku d'armes au amal nak, bis bu mag man ko petit lañ la anniversaire bu mag bi xam amal at mu jot bis bu dellu si boobu Dal, moom laa fas amal nag gannaaw bu ñu ba ca ëllëg sa une journée exceptionnelle man ko lu tax mu rendre hommage kenn ko de ni dafa bokkoon ci man doonoon sama idole nekkoon suma xarit ñëpp Samba ak moom muy mbay Babou gay ñu fas yéene ko ci rendre hommage waaye nag mooy am sous le patronage de monsieur le maire de la commune de Meke, El Hadji monsieur Ngagne Demba Diallo mouvement And Suxali kadior professeur Omar Sok. le colonel Falilou Diop monsieur Bassirou Niang borom mouvement dëggal El Hadji Kosowade adjoint au maire commerçant ci Ngaye meke monsieur Mamadou Mbengue gay responsable politique nag ci meke monsieur Pape Diop secrétaire municipal la Mor honorable député le de monsieur Maket Dité responsable politique Moussa diam responsable politique politique Rewmi Khadim Ndim responsable politique PDS monsieur Modou Fall la commune de Koul monsieur Aymerou Gningue maire de la commune de Mérina Dakhar monsieur Amadou Nia Mbow di xaritam waaye di doomu ndeyam monsieur Lamine Mbaye président comité de santé bu Ngaye Mékhé monsieur Cheikh Sy directeur bu maison de l'outil monsieur Mamadou Diouf assurance monsieur Abdoul Aziz Ley président conseil communal de la jeunesse Mamor Seck monsieur Métallique Ahmed Neex Sow la ak kan Tamsir Dieng commerçant ci marché central bu Ngaye Mékhé ak kan Pape douanier nekk ci HLM Mouhamadou Baro ak kan Adama Samb commerçant ci marché central bu Ngaye Mékhé monsieur Bounama Diop président zone A1 ci Ngaye Mékhé monsieur Pape Ngom tailleur la nekk ci Ngaye Mékhé ne man nag dama am ay marraines yoo xam ni nag ñooy samay xarit yi samay soppe man ko ñal la mun ma xanaa xam nga de madame Mourina ne Sophie Dia allo Bass Ngom di ménagère nekk ci Thiès maam Awa chéri Ibou Diop la de maam Sey Mbeng borom Casablanca madame Diakhou Ndiaye responsable politique APR nekk ci Ngaye Mékhé Mbacké Mariama Ndiaye responsable politique nekk ci Ngaye Mekey Mariam Sagna directrice bu SEDAF sama jigéen Yacine Diop nekk ci Ngaye Mekey Mame Awa Seck restauratrice ci Angle Goro Diop madame Diakhaté ne Khady Mbaye ci Ngaye Mekey madame Mbaye ne Aïchata Li Zeyna Chéri Zora nekk moom it ci Thinou Mbarik Ndeye Khady Baro nekk ci Ngaye Mekey Odia Jité ci centre de santé bu Ngaye Mekey madame Ndiaye Ndiaye ak soxna Anta Kend nekk ci Thiès kon daal mbokk yi loolu mooy bis bu mag bi man ko nag lan lay tëddee programme bi mun ma bu xëyee ci bis bi bu 9 jotee jàpp 10h daañu amal récital Coran maanaam jàng alxuraan jagleel ko nag nga xam ne mooy Mbaye Babou Guèye nag kon kenn ci ñoom waaye 10h jàpp 12 ñu amal nag set setal 15h ñu amal marché de gala loolu mu ngi am ba tey ci lendemain Korité bi 21h ñu amal nag soirée kan moo fay teew groupe bu Petit Maaj ngéwal gi chez Weuz doon di kër maam astu fii ci angle Pekes artistes yi nga xam si nag ñoom lañ fa invité mooy mbalaxmaan yi ak rappeurs yi comédiens yi ak animateurs yi daañu amal aussi nag mbokk yi défilé de mode boo xam ni ka koy présenté mooy Cheikh Silla borom complexe kër Makumba yooyu nag ma ne ko naka lay demee mun ma dañu am prévente maanaam bu fekkee balaa bis ba la ko jaay ci francs bu dee bis ba la ko jaay ci trois France borom tayif kon daal mbokk yi petit match mu ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina fan si xam ne bu sañoon nee na kenn ku ci nekk dafay ñëw jox la loxo loolu moo waral nag mu dajale ñëpp fan lay amee ci complexe kër maam astu ci angle pekes le surlendemain de la Korité maanaam bu ñu Korité ba ca ginnaaw suba ga mu ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina vous les fans le petit match ku yeex ñàkk